salaamualeykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu mbokku internet yi leen jox seen wàccuwaay waaw ma dégg euh, une analyse euh, très approfondie ci épisode yu tey bii muy yu am solo di jàngat yu am maanaa mais j'ai vu que beaucoup d'internet dañu appesantir yu trop ci wàllu ndaw si di wax naan dafa feebar wala feebarul dafa dof wala doful mais. Euh, xëy na loolu moom leen ci gën a intéressé mais vraiment soulevé nga ci point yoo xam ne vraiment lu jar a jàngat la te c'est riche d'enseignement waa parce que en premier lieu tu as parlé du pardon waa pardon dafa am solo parce que nit ki quel que soit ses défauts ak lu mu la mun ti def bu la baloo ak en tant que jullit da ko war a baal parce que ñun bés bu jot ñu ngi tooñ yàlla te ku mu baalul woon dina la dugal safara yërmande yàlla rek moo ñu mun a jàllale te chaque jour dañ koy tooñ di ko baalu kon nag nit ki tey ak lu mu la munti def ak lum la munti tooñ bu la baaloo na nga ko baal parce que baalu àq signe d'humilité la parce que du ñëpp mën baal ma àq du ñëpp ko mën tooñ la ba pare ñëw baalu la àq yombul su ko defee sa moroomu gor sa moroomu nawle bu ko defee da nga ko war a jéggal te yàlla rek tax même bu fekkee ne lim la defoon rëy na wala metti na en deuxième lieu euh, ma ñëw ci le cas du vieux man loolu kaawu vier bi daf ma jaaxal xam nga nee nga y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation mais loolu jaaxal na ma parce que vu l'âge du vieux wax dëgg yàlla bu fekkoon ne jubal na jaar na yoon nëgër ni war na fekk mu uf njabootam parce que assonage bu doon un jeune nu mun ne dafa figgee këram mais mag mu toll ni kii nga xam ne mag la il est mûr il a un certain âge nëgër ni wax dëgg yàlla bu fekkoon ne te ñu yar ko ca yar yu jëkk ya muy mag waroon na fekk mu nekk ki mbokkam te waroon na doom sax mais mu yore ay sëtam moo tax nag à bu fekkee nëgër ni fekk ko ci mbedd mi là c'est un cas vraiment c'est un cas à méditer te lu doye doye waar la man loolu man jaaxal na ma torop bu ñu ñëwee ci kaawu ki nga xam ne tamit dafa doon naan ndax topp ay ànd yu bon loolu aussi euh, nit ki dafa euh, war a am éducation de base bu dëgër boo xam ne dem na ba ci ba yow kenn warula mun a influencer ba ngay dugg ci sàngara wala dara ndaxte problème boo am faje ko cigarette bu bu fekkee ne benn nga tux di nga dem bay tux fukki paquet par jour bu fekkee ne sàngara nga ko faje bu fekkee ne benn verre nga naan dinga dem bay naan verre yu baree par jour parce que lu bon mënul faj problème loolu mënul ne ne dama nekk dans des situations damay naan damay wut ay ndoyu bon di naan loolu man d'accord ma ci te baaxul ku ci mun a génn na ci génn moo tax nit ki dans ta vie booy choisir choisir al àndandoo bu baax parce que am na ñoo xam ne boo leen toppee seen àndandoo rek bu soobee yàlla di nga am problème nit tey xam fi muy teg tànkam xam ni muy àndal loolu moom bu ci munee génn na ci génn. waaw pour le cas de Lalla <laughs> boobu moom ça nous xaw ma day simuler xaw ma dafa feebar mais bu fekkee ne day simuler daal jaru ko na jóg rek gëm boppam te affronter euh, wujj bi rek te kiiw ak moom mais man de ah. Euh, je ne pense pas que muy simile xëy na tamit dafa feebar carrément mais bu dee loolu la tamit gaaw na te comme moom eh, elle était au courant de beaucoup de choses loolu waru ko ébranler ba tax muy eh, feebar wala muy dof te vraiment <laughs> bu fekkee ne loolu la wujj moom jaru ko wax dëgg yàlla na jóg rek jéem a defante wujj wi moo gën muy simuler feebar bu fekkee ne loolu la parce que tamit am na jigéen ñoo xam ne dañu bari ay facette bu ñu lañ takkale gujj lu nañ dinañ ko def am na ñoo xam dañuy menacer seen jëkkër naan damay xaroog damay def lii mais bu fekkee ne lii simulacre la ba nga xam ne weesu na te jëkkër ji xam na ne feebarul mun na indi lu bari seen diggante lii daal vraiment àddina jaru ko te wujje jaru ko bu fekkee ne daal dara jotu ko na jóg rek te toog moo gën man d'accord ma ci euh, simulacre bi honnêtement loolu moom bu fekkee ne daal doful dara jotu ko te wujj warul mun a dofloo kenn parce que doom a gën a métti te dañuy ñëw bett jigéen ne ko sa doom dee na te taxul mu dof à plus forte raison wujj te nga xam ne yow euh, tu connaissais beaucoup de choses de l'histoire là man daal jàngat boobu laa ci mun a indi ci kanam